ni ngeen ko xamee euh, def nañ élection présidentielle Euh, amoon suñu candidat muy pour le président Macky Sall yeen fekke ngeen réunion yi nga xamné yépp def nañ ko fi ci kër gi nga xamné Khadim xaadim moo fi nekk comme nim ko doon wax dafa melni ni parce que réunion yi fi lañ ko préparer ci digg bi ñu waxtaan fet fi ñu toll kon nak biñu amé résultat bu melni biñu am aussi war nañu dajalé yi nga xamné ne bokk ak ñom ak ñi nga xamné sax ñoo liggéey liggéey bi

wax nañ ko léegi ne ci département de Mbour ñoo gagné tous les bureaux tous les centres toutes les communes xam nga kooku xaw ma ndax moo sa mais xam naa ne ba ci ba ci bureau yi sax yëpp ñu gagné ko kooku li mu wone engagement bu des populations de Mbour satisfaction bi ñu am ci bilan bi nga xam ne président Macky Sall euh moom ci bopam euh woné nako liggéey nako mais par itam ma yok ci né moom candidat bu neex a la parce que amna na bilan boobu ba pare moom itam daf ci dugal fulam ak faydam ak cawarteem war ñu exemple danaka ñun kenn ku ñu ñun li nga doon def dal moy jéem def ni Macky Sall def parce que pendant 20 liggéey bi mu liggéey avant ñu naan ay ci ay inauguration be ci tegu 21 jours de campagne yi nga xamné bës bu jot da fay liggéey ba 5 h du matin

kon nak liñu ñu liñu bëgg dal moy ñu bàyyi ay ay questions yi nga xam mom lañu nekk di ko évoqué. yoo xam comme yi nga évoquer légui yow ya ko waxoon. parce que lolu li tuwab di wax ni c'est pas à l'ordre du jour ñun lolu du suñu du suñu du suñu euh, problème li suñu problème fi mu ne moy gagné nañ au premier tour majorité confortable am légitimité légui dañ koy accompagner pour mandat bi mu def lu ëpp lu mu defoon ci sept ans yi loolu mooy suñu suñu eggee ci 2024 nak 2024 rek ñu waxtaanee 2024 comme ni ñu waxtaanee woon 2019 quoi incha allah incha allah loolu lañ bëgg mu continuer parce que 2000 bu leen fàtte aussi 2014 amoon na benno bi ñu dem local dem ay local ci Sénégal yépp ñu benno bokk yaar li mu am gagné plus de 500 communes la gagné won liñ ñu moy aussi même chose inchallah nous avons 550 yi 560 communes yi avons ñun gagné 500 wala lu ko problème l'essentiel pour consolider pour le président Macky Sall parce que le pouvoir national il faut le pouvoir local lolu ñu xam ko importance c'est pas une élection bo xamné du élection maire rek mais élection pour consolider le, président Macky Sall à côté du pouvoir bi on lui a jox nañ ko au niveau national mu doon président de la république ñu jox ko benn pouvoir boo xam pouvoir local mais les la presque totalité des mairies inshallah. allah ñu ga gisee moo ko nen lu mooy Macky Sall mooy président de la république moom mooy former gouvernement am wóolu naa ko jàpp naa ne ni mu ko war a defee ko defee parce que xam na Sénégal juróom-ñaari at yi moo ko gouverner xam na li mu war a def Inshallah, allah dina ko rek ba Mbour Mbour parce que Mbour lañ am Mbour mooy suñu suñu département commune de Mbour mooy suñu capitale départementale waaw te Mbour am dafa am façade maritime am gannaaw donc dafa am solo lool ci Sénégal autour bi fiy jógee bi ñu jógee fii dem dem euh, euh, Fatick continuer be, be Kaolack loolu aussi ci développement Mbour la bokk du dëgg loolu yëpp dañ ko war a jàpp rek ne euh, déjà président Macky Sall am na xalaat yu rafet yu muy jëmale suñu département li nga xam ne wax nañ ñu ko nag bi ñuy def campagne bi bind nañ ko yëpp incha allah nañ ko jox président ba pare jàpp ci pour que président dimbali ñu ci parce que Mbour dimbale ko ci ci ci koom-koom dimbale Sénégal.